بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وخدمه ومتي وسلم تسليما نيغي سيارة سرين بي مولم بوكي طالبي في نك te di leen sant tey siyaare ci bis bi muy bis boo xam ne yaakaar naa kenn ku di jullit walla nga bokk ci yoon wi umpaleetoo ko ngir la ci xewoon ak la ci sëriñ bi wax ak firnde ja nga xam ne ñëpp fekk fekk nañ ko walla ba ñu bari fekk nañ ko muy dikkuk àdduna sëriñ Abdul Xaadir radiyallahu anhu mu amee ndaam sëriñ bi yónnee ca maam Thierno sant ko mu bàyyi léppam te dem ca te bu fay dem di ko wutalu tur na guddal aw yoonam ndax feeg muy dem bay wëlbatiku ku mu fi gis kooku yàlla jéggal na ko mu mel na nag kuy doo di dikk sëriñ bi wax ci yow lu mel ne lii mu wax ci yow nga nekk fi firndeel ko ba am juróom-ñaar fukki at ak nangam kooku ku bokk ci moom wala nga aju ci moom war ngay fàttali ko loolu tey sant yàlla bu baax ndax bokk ci gat ndimbalul yàlla la waaye kenn mënu koo fàggul sa bopp féete ak moom it def ko muy sëb sëriñ wala nga féete ak njabootam kenn mënu koo fàggul sa bopp yàllaa koy fàggul nit kon nag nun ñi yàlla defal loolu war nañ koy sant sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax te di leen ñaanal sëriñ Basiru yaag sa mag yi yëpp góor ak jigéen yàlla bàyyi leen fi te may leen fan wu gudd ba li ngeen ne te bëgg ko liggéeyal sëñ Touba bëgg ko liggéeyal sëñ Cheikh Abdoul Khader yàlla jàppandal ko ba lépp lum neseroon waroon koo def rek mu àgg ci seeni loxo yéen ñëpp ñu ñaan fi barke ak defaru ci bis bi defaru koo xam ne gi ak yàq duutu ca amate ak fan wu gudd ak wérug yaram li ñu ci sëñ Touba rek neseer ko ci moom lépp yàlla defal na ko di jaay Seexul Xaadim jërë ngeen jëf <laughs>